sa analyse par rapport ak euh, ak euh, il faut d'abord ñu xam ni euh, El Hadj bi ñëw c'est le président du parti des travailleurs et du peuple. effectivement PTP et bi ñu may invité. Mhm. defe naa développement yëpp amutoon. ñu mhm. waroon naa fi ñu ajuma bee passé format un peu de malentendu. effectivement ñu reporté ko ajuma bi kon tey dama kontaan yi ñëw pour wax te dama bëgg bu ñu may di mhm. ñu di ci boole suba parti. ndax nit ñi gën koo miin. ndax mooy candidat au PTP quand même pour présidentielle 2024. 2024 waaw je crois que c'est le candidat qui est venu ici et il a des idées sur toute l'actualité et sur le devenir de son pays parce que mënoo jiite réew dam am question yooyu daw am question tabou mhm. kon maa ngi seen disposition ci affaire UMS bi euh, c'est une affaire regrettable mhm. parce que ku xam Télico le président Télico xam ne ku ñëpp respecté ci justice ndax justice dafa doy waar juge dafa nekk genre yàlla ci suuf si dañ pouvoir téye sa doom sa moroomu nit doomu doomu aadama comme yow nga mën koo tëj bërëb du fa mën a jóge nga mën koo tere bu ay jabaram wala ay doomam wala nga war a koo génne këram wala nga war a ordonné ñu jaay këram c'est-à-dire pouvoir bi juge am dafa rëy enfin dafa garaaw dafa mel ni yàlla kon kooku aussi kenn waru koo nasaxal war nañ ko nag encadré parce que du lu ko neex mu def mais ku xam Téliko le président Téliko li tax magistrat yëpp tànn ko jiital ko ti mu nekk xale bu ndaw am ñu ko mën a jur ci biir juge yi dañ ni si ñun olof xale bu ay bu loxoom setee mën na bokk ak ay mag loolu day wane ni président Téliko loxoom dafa set ndax magistrat yi ñàkk ñu fayda ñàkk ñu fulla ba jël xale bu ndaw du ñetti téeméeri magistrat gën koo mag jiital ko kon li li ñuy wax bu ñuy tànn nit ci lu ñuy seet est-ce que dañuy seet naissance bi walla alal ji ñu ne noo jikko bi lañuy seet kon jikkoom la ay nawleem seet ni ko yaa ñu doy li ngay nekk dëgg xale yow lañ fal nga jiite ñu est-ce kooku war nañ koo des xal kooku ku taxaw naan ay du sénégalais alors que sénégalais la fii de dëggee jawee gi sama rak sama booy sama xarit maître Moustapha Dieng mooy rappelé ne ñoo màggandoo ak maître Étienne John muy waa Géejawaay yaroo fi amul lu ñu koy waxal léegi lu ne ñu bëgg ko yàq na xëy na fulaam na xëy na faydaam na xëy na jomam na xëy na aussi lim dul nangu ndax temps yi seetlu nañ ni am na magistrat boo xam ni jëlee nañ ko fa Podor indi ko cees ci ay décision yu jël te xëy na neexul ñenn ñi. mooy juge Ngor Diop. waaw pour la première fois ñoom ñu dem Cour suprême pour casser loolu loolu nag xëy na am na ñu neexul. waaye est-ce que loolu war na tax ñe tey ñu mbugal leen ndax léegi comme ça keneen du kaas ëllëg loolu nag ñun dañoo bokk ci benn lu ñuy famille judiciaire avocat magistrat greffier lu xew suñu kër ñun ñëpp ko yëg jamono yi jàll greffier yi grève nañ fi lu man ñetti weer daanaka ñëpp son nañ avocat yi magistrat yi justiciable yi ku bëgg casier judiciaire ku bëgg certificat de nationalité ku bëgg jël sa jugement ku bëgg am jugement atte amul kon ñun li ñu ñaan li ñu ñaan man en tant que homme politique mooy président dimbale ñu génn conseil supérieur de la magistrature génn fa ministre de la justice ndax ñu am justice boo xam ni du am exécutif bu nekk fële di ko commandé. une justice indépendante. waaw parce que man sama programme de gouvernement li tax ma ne. Mhm. c'est le responsable du PTP qui la là. dafa may yàlla dafa may lu mayul presque homme politique yi di coow fi ci dëkk bi. macha allah te Sénégalais yi du ñuy seetlu mais El Hadj Diouf bi mu droit ba pare nekk avocat international di plaider fu ne ci àddina bi. yàlla daf ko may mu nekk ci gouvernement nekk ministre jusqu'à la mort monsieur le ministre daa ko dégg kenn mënu ci dara mu jóge fa nekk député du peuple député bu nekk député du peuple nga yaa xam na nga assumé ko yaa xam nga nekk député du président wala député yambar ci assemblée ba yoolu yaa xam mais député bu nekk député du peuple la bu la neexee nag bu la wooyee nga ne say nawle faalewuma leen jàngu leen xamu leen dara duma leen wuy si bu la neexee it ñuy changé constitution bi supprimer poste premier ministre nga dem gàmmu François Bodian bi ñëw na pour ne faale wu bi nga bokk astapli forest daa mhm. joxo leen cër mhm. c'est bi loolu amee dama bëgg président génn conseil supérieur de la magistrature ministre de la justice génn ci ñu bàyyi magistrat yi parce que ñun maa ngi rappelé bi à l'assemblée bi fa ma dikkee ñaa ñëwee ak bi ñuy def ay réformes dañ ne woon dañuy boole boolewaat conseil d'état ak cour de cassation xam nga cour suprême dañu ko tasoon def cour de cour de cassation cour des comptes ak conseil d'état daf ko ñetti pàcc ñu ne cour des comptes kaa dañ koy bàyyi moom mu féetee nee mais ndax affaire xaalis lay gën a xool mais attekat dëgg yi conseil d'état ak cour de cassation dañ koy delloo cour suprême ndax mu am benn président cour suprême bu am doole mën a jalo président assemblée nationale ak président de la république loolu mooy trois pouvoirs yi pouvoir exécutif mhm. pouvoir judiciaire ak pouvoir parlementaire yàlla may ma bi ma defee pouvoir judiciaire avocat de pouvoir exécutif ministre de pouvoir législatif député donc man def naa yëpp jàng ci ñett macha allah donc xam na bu ñu nekk lan nga mhm. te ñett yooyu lañu moo yore réew e puis ne indépendance de ces trois pouvoirs waaye mais il faut être mooy lu waay wuyoo da koy nuru mel ne ne nan lañ mënee ni pouvoir kenn ci ñoom mënul chef moroomam waaye mu am benn président mu nekk fële di nommé magistrat yi am ministre bu topp ci moom ministre de la justice di nommé ay magistrat foo ngeen loolu yoon la loolu day indi rupture de légalité entre les institutions moo tax sama programme de gouvernement damay def man damay supprimer ministère de la justice du ci am wax naa ko <laughs> bu bu ayaa dee naa ko yow ministre chargé des relations avec la justice mais daa amati ministre de la justice yaa ngi may dégg mm-hmm. léegi euh, alors bu fekkee ni dafa am assemblée nationale est-ce que président mais bu fekkee ni dana tànn ay député bu liste yi dem mais du mooy choisir ne man diw mii maa ko directement député il faut ñu dem wote wote ji mais est-ce que président assemblée nationale c'est vrai que président dina ko tànn ci biir groupe am seen biir yooyu seen waxtaan parti mais bu ñu yëpp assemblée dañuy voté ni président assemblée ku bëgg bu dee député ak président ñoo ëppale xëy na dina ko fal mhm. mais amul ministre boo xam ni moo chef député yi amul benn ministre bu ne demande explication ay député amul ministre de l' assemblée nationale. d' accord dama bëgg foofu sénégalais comprendre ma dafa am lu ñuy wax assemblée nationale pouvoir indépendant la. am lu ñuy wax justice pouvoir indépendant loolu moo tax amul ministre de la de l' assemblée nationale buy jox ordre député yi di leen nommer di leen affecté mu am na léegi ministre de la justice nekk ci gouvernement mooy le pouvoir exécutif. di sanctionner di nommer di yóbbu ay ay conseil supérieur de la magistrature un juge boo xam ni bokkul ci exécutif. d'accord ça fait désordre ça du fait... point de vue institutionnel. alors, désordre ça fait désordre donc. Euh... moom benn jour. foofu dama illustrer erreur bi gouvernement bi def. te gouvernement yëpp ko def. Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall dañuy bind dara ba pare duñ ko sax xam. di nalaw xam nga loolu mooy lan. Mhm. amoon journée. nationale des institutions ñu defee ko conseil économique social et environnemental avec le ministre à l'époque Mansour Sy chargé des relations avec les institutions boolewuñ ci justice te ñu ne l'institution judiciaire c'est le troisième pouvoir la troisième institution mais gis nga bi ñuy defee la journée des institutions mm-hmm. ma Sall ñëw ubbi ko ñëw ubbi ko euh, méridien euh, président King Fahd après ñu dem def travaux yi conseil économique justice dañ ko écarté kenn boole ko ci pour ñoom justice du institution pour ñoom justice genre agence la rek genre département la boo ko exécutif c'est en violation de la constitution sénégalaise loolu erreur de erreur bu garaaw la boo xam ne mu ngi ko ñu koy doxal